lan la mën a joxe. PDS war a euh, dugal euh, recours euh, tey parce que ñoom nee nañ ils vont quand même attaquer le la décision surtout décret boobu noonu est est-ce que tey c'est-à-dire déjà naka lañ mën a jàngatee la démarche du PDS depuis le début euh, de de des de parrainages bi ñu rejeté seen candidature ak léegi. xam nga maa la ko doon wax léegi léegi ma ne la boo xoolee PDS c'est un grand parti te PDS dafa am. Euh, dafa am solo ci li nga xam ne mooy moom mooy mooy wàllu élection présidentielle tey jii nii boo xoolee euh, déjà à Mbacké wala mhm. Touba bu ñu ko waxee dafa nekk benn bastion historique pour maître Abdoulaye Wade boo xoolee Wade euh, PDS même ci élection législative yi ñu jàll wàllu ak yeew yeewi daal di lëkkaloo ngir gagné foofu noonu donc bastion boobu noonu dafa am solo ci PDS PDS kon du parti bu ndaw mhm. donc tey jii nii parti bu mel na PDS ñuy dem élection présidentielle nga am benn axe stratégique bu mel na Mbacké bu mel na tuuba tey jii nii amoo fa candidat PDS dafay am lu mu joué dafay am lu mu changé ci élection présidentielle donc parti bu mel na PDS pour man war na waroon nañu am candidat donc aujourd'hui waroon nañu am plan plan B wala candidat. waroon nañu am candidat. plan B moom xam naa dina xaw parce que lépp li nga xam ne dafay xew ci parti démocratique sénégalais euh, déglu naa benn ministre di ko wax donc euh, maître Abdoulaye Wade yéeg na ko donc je pense que aujourd'hui bu dee euh, Karim mooy seen Euh, pourquoi pas ñoom à la fin ce qu'ils veulent c'est que aujourd'hui Karim Wade participe à l'élection présidentielle mhm. bon li nga xam ne moom la ñuy déposé tey jii nii foofu nga xam ne mooy conseil constitutionnel ba ñenn ñi sax wax élection xëy na du am à la fin parce que man dama gëm ne dama jàpp ni sax ni mi mbir mi di demee campagne bi. taxul taxul xanaa cour suprême kay lañ koy yóbbu. mais waa conseil bi joxe décision ba pare voilà donc est-ce que est-ce à la fin loolu a dina a kii est-ce que élection dina am à loolu yëpp ay question la yoo xam ne. tey jii ni PDS bu defee lii ñëpp ñoo ngi ci am ay doute que comment ça va se passer pourquoi bu mel na PDS boobu ba tey di am benn rôle bu am solo ci ni nga xam ne noonu lay processus bi di doxee donc da lay leer na am na mbir yoo xam ne mu ngi si suuf man pour man de non-dits yoo xam ne moo ñu waral yaakaar nga ne euh, il est de connivence ak euh, le le régime c'est-à-dire la grande coali la coalition Benno Bokk Yaakaar euh, parti démocratique sénégalais et la majorité présidentielle waaw bon doo ko doo ko mën a doo ko mën a séparer parce que da ngay da ngay fàttaliku bi ñuy créer commission boobu noonu pour euh, repousser élection yi bi ñu demee gis président palais président da leen di wax mënatuma ci dara conseil jël décision. Mhm. mais à la fin même ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci bi ñoom la président daal di dégluwaat ngir ñu dugal loi boobu noonu ngir ñu repousser élection yi donc pour man PDS ak ñi nga xam ne ñenn ñi nga xam ne wala président de la république mosu mosuñu réeroo ci ay mbir lépp lu ñuy def xam nañ ko moo tax ma ne la. am na ñi nga xam ne ñoo ngi wax est-ce que élection présidentielle dina am c'est parce que mbir mi moo leerul ba tey suñu diggante diggante PDS ak président Macky donc loolu yëpp lu ñu war a leeral la lu ñu war a xam la te je pense que aujourd'hui président makisal Sall sa posture dafay wone que mbir mi moom am na ci benn euh, rôle bu am solo bu muy jouer diggante da lay leer na rek mooy président Macky Sall ak Abdoulaye Wade instant bi ñoom ñoo nekk di football match bi. alors ñu ñu taxaw ci euh, démb li nga xam ni moo xew ak APES parce que je pense que euh, lu bokk na ci lu gën a marqué aussi le démarrage de la campagne muy euh, taxawaayu. Euh, la coalition Diomaye Président hier on a vu quand même qu'il y une forte mobilisation euh, sans le candidat sans même euh, disons ki nga xamante ni aussi moom moo boosté candidat bi mu di Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp jamono jooju ñu ngi absenté terewul la force la mobilisation a été très forte loolu lan ban lecture lañ ci mën a def. waaw xam nga bi ma gisee démb mobilisation boobu daf ma rappelé boo fàttaliku Ousmane Sonko terrain boobu la taxawoon doon wax Macky dina ma rey wala ma rey ko xaw ma ce sont des mots comme ça mooy bu muy bu muy défier président Macky Sall. il une forte mobilisation. Hier, Ousmane Sonko n'était pas là-bas. Diomaye Faye n'était pas là-bas. Et pourtant, man ci li ma gis mooy même mobilisation bi nga xam ne moo amoon moom laa gisaat foofu noonu te est-ce que sax bi ëppul mobilisation boobu noonu parce que bi may xool image yi maa ngi wa maa ngi def jàngat li ma gisoon Ousmane Sonko taxaw ak bi sans Ousmane Sonko. ça me rappelle boobu ak bu Kër Massar bi. voilà effet ak bu Kër Massar bi également. Mm-hmm. mais boo xoolee mooy que tey jii nii li nga xam ne moo am. mooy que même ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon doon woy lan lañ doon wax ay Sonko na mënaal ay yooyu donc moo lay woon ne ndaw yooyu nga xam ne ñoo fa ñëw wuy si tey dafa am benn mbir bu nekk si ñoom loolu c'est très important moo tax je pense que candidat bi nga xam ne moom la Macky Sall tànn di Amadou Ba mise sur cette jeunesse la euh, ça benn contradiction sax bi nga xam ne day dafay am mm-hmm. donc jeunesse boobu taxaw foofu démb mobilisation boobu nga xam ne Diomaye président def na ko dafay wane aussi euh, la force de l'ex Pastef parce que xam nañu Pastef euh, li leen gën a may chance mooy la jeunesse Ousmane Sonko lu ñu munti wax la jeunesse ñu bëri si ñoom dañoo am espoir ci moom donc aujourd'hui il choisit un candidat muy Diomaye donc ñoom dañuy gis ne comme Ousmane Sonko moo tànn Diomaye donc amul problème espoir bu ñu amoon ci Ousmane Sonko mun nañ ko wekk ci Diomaye Faye moo waral mobilisation bi nga gis noonu démb même malgré tout c'est même si j'ai pas aimé les mots de nga xam ne dafa nekk di wax Ousmane moo ma tànn ngir ñu toj système bi alors que moom mu ngi woon ci système bi benn pas boo xam ne waaw c'est que bokkatul ci système bi Ousmane moo ma woo ma nekk maçon pour toj système bi pour man c'est des c'est son discours quand même il est il est passé à côté malheureusement dafay jàpp parce que mënoon jaakaarloo ak ay ndaw yu bëri yi nga xam ne dañoo ñëw taxaw am yaakaar ci kenn yow ngay wax waxu système te kooku moom mu woote anti système donc nga ne ma Ousmane daf ma woo pour man ma ñëw ma toj système bi donc pour man foofu en plus mu nekk candidat à l' élection présidentielle c' était c' est pas c' était pas le discours pour man bi waroon bi bi Habib Sy waroon tenir en ce mala là bu gisoon ndaw yooyu taxaw mais est-ce que nekkul aussi une façon pour lui de se dédouaner de de dire à tout ceux qui leur euh, qui qui lui tout tout le temps que moom. c'est un produit purement produit du système parce que aussi koo xamante ni yaa ngi woon jege woon loolu Abdoulaye Wade aujourd'hui euh, tu te retrouves euh, ci koo xamante ni yow tu incarnes l'antisystème comme comme Sonko est-ce que c'était pas l'occasion vraiment pour lui de dire que voilà c'était un euh, c'était une histoire c'était le passé et puis voilà foog mu jeex na jeex na mais Astou il faut il faut il faut assumer aussi parce que Habib Sy su Wade il était ministre pourquoi pourquoi dire aujourd'hui que dama bokkoon ci système bi waaye léegi damay ñëw di toj système bi donc c'était pas son discours c'est le discours de Ousmane Sonko et autres ñi nga xam ne mooy ñu bees ñi mujj ñëw ci langue politique mais mm-hmm. moom lu mu waroon wax système bii de wala mu am beneen discours bu mu yëkkati mais bu fekkee tey dafa bëgg a dédouané wu comme ni nga ko waxee pour man c'était pas le bon moment parce que aujourd'hui est-ce que tey la war a mën a wax xam ñëpp xam nañ Habib Sy implication bu mu am ci wàdd bu nekkee fii donc tey jii nii il est comptable de tout ce qui s'est passé am na gouvernement boo xam ne na ci donc bu fekkee moom wax na loolu pour man ak âge bu mu am c'est pas la jeunesse moo koy mën a comprendre par rapport ak lu muy wax moo tax man j'ai pas j'ai pas aimé son discours en disant que bon peut-être que waroon na mën a éviter en parlant de système ou anti-système parce que pour man c'est voilà pour man loolu c'est un débat dépassé mais bu weesoo sax moom Habib Sy on a vu euh, am na yeneen euh, tête yoo xamante ni gis nañ leen foofu bon pour certains euh, ça peut être et pour d'autres xëy na xeetu euh, rassemblement la boo xamante ni euh, dañ ko def rek pour la république ndax Sénégal moom moo ci gagné en tout cas ñaari son de cloche la yu ñuy dégg souvent mu di yenn ci lu ci mel ni Aïda Mbodj par exemple moom aussi je pense que euh, elle ne elle ne date pas d'aujourd'hui en en terme de politique Habib Sy bi ñu doon wax léegi ci la bokk euh, Abdourahmane Diouf également qui rejoint la coalition et que moom aussi parfois il n'était pas trop d'accord en termes de position ak euh, Pastef entre autres est-ce que tey loolu mën nañ ci gis loo xamante ne c'est une coalition de circonstances tout simplement wala réellement lii euh, dañ naan ñii ñoo bokk vision moo tax ñu ànd waaw bon xam nga ku mel na par exemple docteur Abdourahmane Diouf je pense que euh, dafa nekk koo xam ne toujours lu muy défendre moom il est cohérent dans ses dans ses dans ses idées et dans ses propos Aïda Mbodj également depuis un certain moment je pense que bu doon nguur moo ko taxoon a jóg wala bu doon euh, bénéficier wu ci li nga xam ne moo fi nekk je pense que peut-être ministre lay nekk ci gouvernement Macky Sall. Mm. donc possibilité yëpp am nañ ko mais elle elle euh, de l'autre côté pour wax ne man opposante lay nekk. peut-être que ñenn ñi dinañ am benn jàngat boobu ñii yëpp fii lañ nekkoon gis naa ne sax ñi nga xam ne ñoo ngi wax ne ñii APR lañ jógee ñii réew mi lañ jógee maanaam boo xoolee système boobu ñu doon wax xëy na ñu jógee ci système bi ñoom ñoo dajaloo ci coalition Diomaye président mais pour man là c'est différent il faut que ñi ñuy xam benn affaire parce que là dañoo ñëw rejoindre un projet dañoo ñëw rejoindre un programme bien ficelé par Euh, Ousmane Sonko parce que c'est man je dis les grands di Diomaye mais en 2019 Ousmane Sonko c'est peut c'est le même programme li ma xam ne moom laa jot a gis mais euh, bu ñu rejoindre benn programme benn man fii a dem am na ci benn nag boo xam dinañ ci wax léegi. effectivement <laughs> effectivement boobu dinañ mhm. programme boo xam ne Ousmane Sonko moo ko taxawal donc ñoom dañuy obligé euh, wu ci li nga xam ne moom la Ousmane Sonko bëgg donc je pense que là. il n'impose pas à Ousmane Sonko benn vision dañu ñëw rejoindre benn vision dañu ñëw rejoindre benn programme dans sa, dans, dans vision donc je pense que loolu mooy moom laa gis et je pense que ñoom aussi xam nañ ne bel bien que lii mënuñu ko changer nit ki moo am programme am et xam nañu aussi la force bi nga xam ne moom la ex parti boobu am moo tax bu ñu ñëwee pour man du système bi nga xam ne moo nekk fee moo rejoindre Pastef ex Pastef mais dañoo ñëw pour gunge li nga xam ne moom la vision Ousmane Sonko parce que ñoom ñëpp boo leen xoolee ñoo ngi wax vision bi ñu gis ak Ousmane Sonko li nga xam ne moom lañu gis mu présent donc moo waral ñu bëgg a ànd ak moom ngir mu yóbbu Sénégal fi mu ko bëgg a yóbbu. mais li xewoon ci yeewi askan wi est-ce que amul euh, il ne risque pas la même chose c'est-à-dire coalition boo xamante ni d'accord dañu ñëw pour changer jëlee fi ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci yenn gox yeeg goxaan yi te féete ci ci ci régime bi. Euh, ba mujjee bi euh, mu nekk coalition boo xamante ni am euh, division ci biir on a vu ak le cas de taxawu Sénégal ak ñoom fu ñu mujjee est-ce que tey mënul lu seen bu mel noonu munul reprendre cest à mënuñu ko dundaat ak cette. maanaam bu ñu dem bu ñu demee ba ba falu nga bëgg a wax wala waaw bon xam nga loolu nag moom beneen affaire la parce que après dafay am yeneen ambition yu am bu ñu demee ba faluwaat en plus bon ce qui va se passer assister à un partage de gâteau. effectivement loolu loolu ala kulli haal dafay am mais bu ñu demee ba ki nga xam ne xam nga Sénégal dafa am loo xam ne moom président bi moo ko moom bu xasee ba falu rek. après moom mooy xool na la koy nan la koy defee peut-être que avec cette coalition Diomaye président ça va dina am benn benn différence parce que on voit quand même ak programme bi nga xam ne moom la ñu teg mais je ne sais pas exactement si su fekkee loolu dina am mais quand même si euh, and see xool xool ñu xool si su fekkee ñoom gagné nañu comment ça va se passer mais ñi ma gis ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Diomaye c'est pas des gens yoo xam ne euh, euh, alal aduna wala leneen li nga xam ne nguur comme ni ñu koy waxee dafa leen dafa leen gën a ñor je vois que yoo xam ne des principes ils ont des vraiment yenn yoo xam ne nekkuñu ci politique jarul leen ko parce que man xam naa ne su doon politique la rek peut-être que dinañ bénéficier wu ci ci li nga xam ne moo gën neex ci nguur gi nekk ci ku mel ne docteur Abdourahmane Diouf comme ni ma ko waxee ay ñoom Aïda Mbodj donc je pense que Sénégal bu ñu amee des gens comme ça mun na dem mun na nekk benn avantage mun na nekk aussi bénéfique pour pour tout le tout à l'heure yaa ngi wax programme euh, Bassirou Diomaye Faye muy Diomaye président bi hmm. mu am ci loo xamante ni aussi euh, ba ñu dévoiler seen programme gis nañ ko si mu di euh, ce poste de vice présidence bi nga xamante ni ñoom bëgg nañ ko teg pour supprimer le poste de premier ministre hmm. loolu nag je pense que ça commence à susciter un peu le débat ndax dañ ne vice présidence bu ñuy bëgg a teg déjà